gis ngeen ko dafa bind xawma ndax leer na limu bind mu bind bonne nouvelle gis ngeen ko dafa bind bonne nouvelle bonne nouvelle pour pour Ousmane Sonko gis ngeen ko xaram won len ko xol len fi dafa bind bonne bonne nouvelle pour Ousmane Sonko ak eh, eh, si accident bi nga xamanteni mom mo am yaakaar naa gis ngeen gis ngeen lim bind ma ñew si quoi ben site internet bu tuddu bu tuddu Senegal senegal 24 eh, xaaral ma buti caméra bi bu tuddu Senegal 24 mom mo bind accident bi am tay euh fofu se fouta suma jumul si num tuddi euh mbey pex ak ak sëñ euh, sëñ euh, Modou Modou Modou Baara Modou Baara Dolli yaakaar naa yaa ngi dégg. léegi ñoom dañoo di dañoo bind bonne nouvelle pour Ousmane Sonko waa man ban Sénégal la ñu nekk laay laaj ban Sénégal la ñu nekk Sénégal boo xamante ni bu accident amee yow site internet wala yow journaliste nga yor sa nga yor sa sa sa nga tiim sa sa sa ordinateur. yow waxoo si dara lu dul naan bonne nouvelle pour Ousmane Sonko Ousmane Sonko lan mooy yoonam si accident bu am lu dul mu ñaanal ña fa nga xam ne accident bi am na ña nga xam ne ñoo si nekk mu ñaanal leen ñu jóg ak jàmm mu ñaanal leen ñu jot seen sante maanaam ñoom dañoo jàpp ne ñun ñun suñu combat ñun newuñu si combat wu rancunier suñu diggante ak ak Macky Sall ak kudul Macky ñun si combat bi ñu mooy defar Sénégal bro. gax yi thank you you mm-hmm. welcome yéen a ngi ñun nekkuñu si combat boo xam ne ay combat rancunier la parce que combat bi combat bi ñu nekk mooy combat defar Sénégal mais amu nekkuñu ci si wu ku dee ñu yéene la ko wala kuñ jàpp kase ñu yéene la ko mais en tant que site internet nga bind yow Sénégal 24 laay commencé après maa ngi ñëw ci may mën a fay nga bind bon nuwel pour Ousmane Sonko waaw Ousmane Sonko ay view jar na ko yow mi bind loolu xalaatoo nga jógee sa kër di tukki li dal li dal li dal euh, mbay peef ak li dar Modou bara doli suma djumul serigne bobu li len dal yow xalaatoo ko sa bop ah ñun ño and ak Ousmane Sonko ñoo ko bëgg gëm mais gëmuñu ko si violence Ousmane Sonko du woowuñu si violence Ousmane Sonko daf ñoo wo pour ñu défar Sénégal défar Sénégal muy commencer ci si violence bi nga xamné usireumi mu ngi yewu ci réew mi mu ko fi violence bi nga xamné violence muy commencer ci si bi Macky Sall li def ay accident di am ay car ñu jël ay nit aj leen ci kaw auto yi ñi ñu leen suufu baay violence boobu noonu moo war a jeex ci réew mi te budul Macky dañuy contrôler autotransport yi di contrôler camion yi di contrôler taxi yi di contrôler euh, calando yi ci six charges xam nga loolu mooy violence maanaam euh, naka la nit di rafetlo accident wala ku dé waaw légui Ousmane Sonko mom xana rek du julit ba yeen wala du doomu doomu jambour wala amul famille wala wala yeen état bi liñ nane état bi dafa am ay presse yo xamné ay site internet yo xamné leena jënd fay leen wala yeen da ngeen sé bok ah motax man télé yu bari du leen sétan site internet yu bari du leen ki dañ ma yónnee image bi sama benen téléphone bi mais lan moko jar ci aduna accident mbey peex def accident ñaanaloko wër ngay bind xanaa sax nga bind na accident am na si cortège su président Macky Sall Mbaye ak Modou mooru baara am nañ problème euh, gaañu nañ si blessé nañ yóbbu nañ leen hôpital doy na mais nga bind bonne nouvelle pour Ousmane Sonko. sëñ bi xool leen li ngeen defaat Ousmane Sonko dafa am famille dafa am ñu ko bëgg am ñu ko gëm mais nag euh, xam ne ñu xam nañ ne combat bi du yomb de combat au système bii nii du yomb lii yëpp dafa am ñu wër système bi nekk si rek système bi arrangé wu leen gars yi gis ngeen mooy tey lu xonq laa ndax Macky dafay bañ du gis lu xonq mais léegi dafa mel ni commencé na koo gis ndax bu ko gisul si su ko gisul si ni ñu koy waxee si ko gisul si lu ñuy takk wala lu ñuy sol rek mu ngi koy gis si dëkk bi fan yi nii violence bi ne si dëkk bi muy Fouta Tampi muy Fatick muy fu nekk léegi damay ñëw si Maimouna Ndour Faye Maimouna Ndour Faye ah li nga def de sa télé bi moom mën ngaa dem 107 TV bi tuddee ko euh, APR ndax naka jekk APR la ma sa doon nag waaw boo demee ba ba ba ba bay jël ay nit di leen ñu jox la xaalis yow ngay jël xaalis boo di ko jox ay nit ñu ñoom ñu leen di fay quinze mille hi how you doing guys thank you all right yaa ngi dégg ñu jël ay xale ñu jël ay ay ay xale jox leen trente mille trente mille ñuy dem Fuuta def RWP bu ñu yeggee fay may mënoonu fay waa tu noonu la tudd merci beaucoup soxna si ab euh, euh, Fatou Diallo merci beaucoup merci beaucoup nañ ko tuddee APR TV manam mais mën a fay mom dee leen tuddee leen terrain bi APR APR TV wa APR TV parce que RTS 2 amna amna RTS 2 mom moy terrain El Hadj Ndiaye bi wa mom mom li moom ak RTS ben lañ rek amuñ 6 6 moy 9 wa même mën a fay mom manam gis nga yalla suñu borom bo nekkee ci lu bon ala kulli al di nga feeñ yalla dañ la feeñal mais Maimouna Ndour fay maanaam euh, Adama Gaye ñu tonto boobu moo mas a moo ko mas a moo ko njëkk a weer bi mu toogee ci télé bi ne ko yow sa sa télévision bi xamoon nañ ko xam nañ noo ko amee ne ko sa télévision bi xam nañ noo ko amee gis nga bi muy invité Diomaye Faye euh, bu Diomaye fay nekkuloon ku ku ku bopp bi baax day jéem parce que loolu loolu tax muy def invité yi muy def ay Diomaye Faye ay Birame Souleye Diop ay boo gisee muy accident demoon na ba nit ñi dañ wax ne Maimouna Ndour fay de moom dafay moom li muy invité waa Pastef fii dafa bari. defu ko woon parce que dafa doon dafa daf ko def pour journaliste non da ko doon def pour daaneel Pastef da ko doon def pour daaneel président Ousmane Sonko loolu la si jublu lan bu El Hadj Diouf teg ko si plateau bi Diomaye Faye nekk këram loolu yëpp ay ay kii la ay pression la yoo xam ne dañ koo teg mais alhamdulilah bi ñu doonee ay xale xam li xew euh, suñu papa yi ak suñu maam yi bu ñu xamul lu xew it ñoom am nañ ay doom yoo xam ne. dañ leen daan wax ñoom sax ñu ñuy weddi mais léegi dañ leen yóbbul preuve dañ leen yóbbu tegal leen vidéo bi wala ñu wax leen li xew léegi bi téléphone portable yi ah adduna bi nit ñi nelawatuñ ñi nelaw bareetuñu comprendre nga waaw en tant que yow nga ne journaliste nga di joxe xibaar ah di di jaay sa askan lu ko jar alalu adduna jar na ko ah alalu adduna jaru ko te am na loo xam ne jaay sa bopp la ko dagg sa yaram di ko jaay la dara jaru ko ci àdduna euh, ñun nag man am na lu bari comprendre naa ko mais faaw ñuy wax li ñu comprendre mooy système bi jëm ngeen ñu diaboliser ci système bi kii système bi la bokkoon kii système bi la bokkoon système bi du nit système bi yi ngeen di def nii mooy système bi yi ngeen di def nii moom mooy système bi te ñun comprendre nañ gars yi yaakaar naa yéen a ngi dégg li may wax ah. que sama écouteurs yi léeg dafay créé dafay dof système bi ñun comprendre nañ système bi mooy du nit du nit mooy système bi système bi ni ngeen di doxalee la loolu mooy système bi léegi sax gis naa teg ngeen seen tànk si waaw moom mu ngi dem di ànd ak waa système bi de mu ngi dem di dox ak waa système bi léegi teg seen tànk si loolu léegi na da ngeen a nekk di di fexe ba waa ji moom bu mu mas a doon si dara si réew mi te loolu ñun teel nañ ko comprendre ñun teel nañ ko comprendre ndax koo xam ne euh, si dayoom si Sénégal dem na ba yegg si dayoom dem na foo yegg foo xam ne li sëriñ si am biir Sénégal am na ko mooy joxe ndigal ñu def bàyyi ñu bàyyi leen ma bàyyi Sonko yegg na foofu Sénégal bàyyi leen ngeen bàyyi def leen ñu def waaw ku yegg foofu nag euh, daanaka am nga li sëriñ yi am ndax sëriñ yi macha allah loolu lañu am ndigal ndigal jëfe tere bàyyi Sonko loolu am waaw léegi ma ñëw jàll si beneen euh, beneen sujet bu jëm si tournée Macky Sall bi président Macky Sall dafa dem Fuuta ànd ak sëriñam sëñ Mountakha du sëriñu Macky Sall de Macky Sall du murit Macky ku nekk xam na kan mooy sëriñam Macky Sall du murit Macky Sall yéen ñëpp xam ngeen sëriñam junj booy na borom doy na borom xel bi mu ànd sëriñam ba dem Fuuta dañoo taxaw si kaw tali bi ñoom ñaar ñu taxaw photo sëriñam boobu noonu moo koy wax naan ko falal diw falal diw falal diw moo sëriñam boobu ñoo ànd ñoom ñooy fal ñooy gouverneur réew mi. sëriñam boobu na bu déggoon li sénégalais yi di wax làkk bi sénégalais yi di wax gëm naa ne dana am lu lu lu bëri loo xam ne dana si dëpp Macky Sall mais déggul làkk bi Macky Sall làkk bi ñuy làkk ñun gaa ñun ñëpp ay alpulaar lañ ñun ñëpp ay alpulaar lañ mais nag boo xoolee ministre Macky Sall yëpp Podor Fuuta Njum Aïda Lao euh, nu mu tërati Dagana Risatol Matam Bakel yooyu la ay ministre am dëkkam dëkk bo ñëwee fi ci diaspora bi consulat yi euh, nu mu euh consulat yi ak ambassade yi ak DG yi ñëpp fofu lañ dëkk si ruq lañ dëkk. légui nak dafa am lo xamné dafa manam bokoy wax dañ nan la non moytul yow li danger la wala yow li ngay dugg ni man dama ko saña So wax wasa, wax sax dañ nan dañuy profité si ñoom naan booyi Pastef wala en man bokuma Pastef pour mu benn sénégalais boo xam ne damay xeex injustice sama réew ma gis ku teg benn projet boo xam ne daf ma intéressé ma xar si sama tànk tubéy muy Ousmane Sonko Macky Sall du du du murit gëmul sëñ Muntaxa gëmul xalifa euh, sa gëmul waa Tiwaawoon gëmul waa Kaolack kenn la gëm Sénégal te yéen ñëpp xam ngeen kan mooy sëriñu Macky Sall kenn du ko wax nag kooku rek moo mën a wax Macky Sall lu mu dégg kooku kese moo mën a wax Macky Sall lu mu dégg doo leen ko deg ci len du wax serigne mak Sall du wax maki rek lay waxal maki kooku rek lay waxal billahi wallahi tallahi li ma wax ci xaan maki Sall gëmul serigne Mountakha gëmul khalifa Medina bay gëmul ben khalifa général bu yeewoo Sénégal ben serigne la am waaw ta suma waxe lol yéen di ngeen xam di ngeen xam bu baax limay wax dem na fouta nak di nax bopam ndax boppam mooy nga jël ay booy yoo xam ne ñu ngi senegal ñu ngi biir Dakar jox booy yi kenn ku ne trente mille bu njëkk booy booy yi ñun dégg nañu parce que dañoo ñun dañoo def ay dañoo lancé ay vidéo yu bari ñu ne booy képp koo xamante ni Macky Sall jox na la xaalis jëlal te bul dem wàccal kaar ñoom dañu dañuy déglu de looloo waral booy yi jël bus yi dem gaare leen stade amitié sarse leen ne leen da ngeen di dem booy leen ba fuuta ñu fay leen loolu la de parce que ñoom ñu ngi ñuy déglu quoi ñoom ñu ngi si page Facebook yi ñoom ñu ngi seetaan ñu ngi gis ñun li ñuy wax dañoo jël booy yi yóbbu leen ba ba ba ba Matam ba Podor booy yi toog fa di yuuxu xiif booy kenn lekkut mais li ñu def booy yi léegi ñu leen arrivé pe lañ leen def maanaam boo leen ñëwee ba maatam wala war a soogi wala njum wala Agnam foofu lañ leen di joxe xaaj booy yi daay parce que booy bu nekk ku nekk Dakar ni Sénégal dëgg ngay ambulant une semaine. mëno am ben 2000 mëno jaay ben 1000 francs ñi wara jënd yoru ñu xaaliss bu ñu gisee benn 30 000 bu seen ngor de groupe tout rek dañuy dugg ci auto yi ànd ak Macky ñu jël bus yëpp luyé len man limay wax dama ko xam de nekkuma di waxon ñu jël bus yëpp luyé len jël boy yi sarti len ci yobul len Fuuta may mëna nur fay bokku na ci ñu jox projet boy yi muy fay boy yi mais nak fi Sénégal dara na nëbbootut dara na botul amatul lu neub ci aduna bi lu fi way di def rek dana feeñ ñu dem Fuuta boo yooyu lañ jël topp ba pare yemuñ si ñu dawloo leen a ba ñu mar parce que booy ñoo topp si kaw Macky Sall daw. léegi nag Macky ku muy nax Macky boppam lay nax Macky kan lay présenté peuple boobu noon international la Macky di présenté peuple bi ko topp. Macky population bi topp ko du du problème ak ñun parce que xam na ne ñun xam nañ Macky li ko intéressé mooy mu won a international wan waa ONU wan waa France wan waa Angleterre waa Amérique ne leen sama ñu ma bëgg ba léegi. su ko defee bu ñëwee bëgg a laaj troisième mandat wala troisième candidature taxaw nag wàcce armée wàcce police ne askan wi bëgg nañ ma benn bandi ay woyu ñoo fa nekk pour jàkkaarloog man. loolu mooy combat wu Macky Sall si mbooloo mi moo ne Macky li ko intéressé mooy mu dem fenn stade bi fees image lay ut image. dama bëgg nit ñi yeewu ci loolu Macky image lay ut bu muy présenté international utul image bu mu leen di wan yéen sénégalais parce que yéen a ngi biir Sénégal xam ngeen ne bëggoo leen ko su nekkoon ne moom bëgg ngeen ko Macky xanaa du dem Fuuta ba jógee ko fa ñu taal këram da ngeen a mës a dégg Ablaye Wade ñu ne taal nañ këram Kébémer da ngeen a dégg président Ablaye Wade ñu ne taal nañ këram point 1 ah man de man de mosuma ko dégg Ablaye Wade jógee na Kébémer ñu ne taal nañ Kébémer déedéet Macky Sall dem dem Fuuta jógee ko Fuuta ñu balaa moo jógee Fuuta ñu taal këram fati ñaari kër yi am senegal nga xam ne fii mooy kër fii mooy kër yaayam fii mooy kër baayam ñu taal ñaari kër yëpp waaye yéen loolu makki ku muy nax boppam lay nax de boppam la fay nax léegi nag dafa am côté boo xam ne naxut boppam comme parce que xam na li xew si réew mi Macky xam na ne réew mi moom bëggatuñu ko. léegi nag moom li image comme li ma leen wax image lay ut bu mu présenté internationaux yi mooy euh, euh, comme bu ñëwee ONU fii wala bu ëllëgee bu Sénégal di tàkk wala bu jëlee ne day laaj troisième mandat li mu ni di mooy sama dëkk bëgg nañ ma. buy taal dëkk bi di rey ñëpp it si image yooyu lay sukkandiku loolu nag lu mat a bàyyi xel la ñu préparé ko ñun ñëpp. benen bi euh <clears throat> si walu accident yi mom cortésam bu ñëk ba trois personnes dee nañ ci dembu tay la xaw ma accident bi am amna ñaar muy mbay peex ak yalla yàlla yalla leen mbay peex ak eh, Mouhamadou Modou Modou Modou bar dool la yaaka na lañ wax lu tut yalla na suñu borom yëkkati. képp ko xamné yaangi top Macky Sall sa sa oyof sa bakkan bi mëna wat parce que ñom dañuy sak dañuy sacrifice ay sacrifice dañuy def loolu moo baye bàyyi xel ah yéen ñi nga xam yor ngeen ay xalé ay tout tànk guddi ñu tollu ku ci am tout tànk dee ko téye parce que kat ay at ngi ni ñaari at xoma ñetti at déggoo leen bakkan bu rot déggoo leen ku ñu ray déggoo leen ku ñu sacc élection yi mu ngi ñew fofu lañu jëmaat nak commencé waat di jël xalé yi ñi koy def moy maire yeeg ñi nga xam ñi ngi bëgg ay maire ñi ngi bëgg ñi ngi bëgg ay nombre tank ñi nga xamanteni ni ñu ngi ñu ngi xërem pour tok sen place bàyyi leen xel ngeen téye seen doom yéen ñi nga xam ne nag yéen a ngi topp yéen presse bi ak yéen booy yi nga xam ne ñu ngi leen di fay ay ay trente mille di leen déplacé dëkk ak ngeen topp gars yi bàyyi leen xel ne gars yi ñu ngi leen di sacrifier accident bu nekk mën na am seen kaw te nag trente mille jaru ko trente mille bakkan dara mënu koo jënd amul lu mën a jënd bakkan waaw kon kon yooyu yëpp dekk na loo xam ne euh, da ngeen ko war a bàyyi xel beneen mooy violence bi mooy nervi yi yi nekk si réew mi président Macky Sall ñaaw na ba pare te yang koy gëna ñaawal nga jëm ko nga jëm ko rafetal nak ci li la gën muy gëna ñaaw ndax li ni am ci réew mi ni musul fi am musul fi am nga dem fouta fouta fouta musul am violence fouta musul am fouta xamuñu xolal mana xamuñu won dara ci mbiré mbiru politique du sen sax sen affaire tay dem nga dugal fa politique politique bo xamné ñom bëggatuñ la wéddi nañ la parce que ñun yé nañ leen yeneen alpulaar yi yeneen yeneen futanke yi fuuta taxaw di naan fuuta tàmpi loolu mosul am si àdduna kenn mosul dégg loolu fuuta di jooy naan fuuta tànki fuuta tàmpi dama dama ne Macky Sall gàllaajam ñaari ñii la jàpp gàllaaju Macky Sall mooy saalum saalum yi ak fuutanke ndax foofu lay dem defu leen comme ay nit saalum ak fuuta mais yeneen dëkk yëpp bu fa demee dañ leen jox cër gis ngeen ñaari tournée mi saalum la dem ak fuuta ndar ba fa demee gis nga ko waa ndar dañoo toog làqatu kenn génnut bim jare ba mu yegg dagana dagana Omar Sarr ko mom Omar Sarr ñafa ña toppoon Macky si sa dagana ñëpp xamanté Omar Sarr ñom bo yoy ñëpp xamanté Omar Sarr du fa am dara benen bi lan motax mu jiyé ko fa fu dem fatik gis ngeen fatik lam fa lam fa jëlé kon kon kon galajam ñi naan maki day xërem ak yu kenn xamul gàllaaju Macky futal te futa galaj ga salum na galajam gàllaajam gàllaaju Sall la tojagut te mu ko fa yombut ndax ndax ndax ñi ñi jege maki Sall ñooñu ñooy xërëmu Saalum ñooñu Saalum la ñuy dundee waaw politiciens yi ay Mimi Touré ay ay ay ay ay euh, nu mu tuddati Moustapha Niass Ndeena Ndiaye Boun Abdallah Dionne ah bu may lim fii dam du ma fi jóge ñooñ ñooñu ñëpp ñooñ Saalum lañ jaay parce que ñun luñ gëm ah diw dee euh, ministre diw dee wala maire diw dee bu may ngénte ñëw na indil na ma kii indil na li ak nii ak nii suñu xamuñu sax suñu problème moo tax Macky foofu rek lay dem président Macky Sall nag violence bi nga xam ne am na si réew mi te am si réew mi li Pape Alé Niang naan ku àttewul ku artuwul di nga àtte boo moytu fa la réew mi jëm. parce que population bu ñu demee ba ay ay nit nit comme yow takkul benn garaat sol yére doon civil comme yor yow jaasi yor yet jàkkaarloo yow di la dóor gendarme ak police taxaw yow président de la république nga taxaw. parce que président de la république yow mi war a àtte àtte kon gendarme ak police moom duñu àtte que yaa leen

di di ah, di leen agressé ah di yow dekk bi nga xamanteni fa nga don bako nan fi sama titre foncier la ñooñu nga dem di len agresser te ñooñu amuñu dara nawet baa ngi Matam Bakel Ourossogui euh, ah Aéré Lao njum euh, orko Diérén fofu dekk yoy non yëpp léegi nawet bi ñëw ñu commencé dugg ci toroxtaange nag waaw dugg ci toroxtaange yoon yi dag dootuñ genn dootuñ dugg dootuñ genn motax biñ fa démé biñ fa jëyee ko sa kër ñom ñu taal parce que dañu xamné ki amuluñu ben njëriñ waaw sàmm alaar la fii si dëkk bi loolu la ñu xam léegi nag euh, man de li may am lim benn fi may daanale rek mooy président Macky Sall delloo si sa xel delloo si sa xel gis naa kooku du la mbéj sénégalais ñun yoruñu habit yoruñu jikko boobu sénégalais bi ñëw na ba yegg si di wax ak yow déglu ko nga xam lan moo ne lan mooy problème nga bàyyi ko mu dem mais ñu jàpp ko ndax joxeñ gi mu lay joxeñ rek yow nit waroon nga mën a wàcc sa bopp en tant que président de la république ne ko ko ba mu pare même bu yëkkati loxoom mu yëkkati loxoom bu waxee ba pare mu dem yoonam mais mu pare say garde jël ko yóbbu ko ñu yóbbu ko tëj ko Podor foofu si kaso bi foo waat ah en tout cas euh, dañ daan wax président Ousmane Sonko moom ngeen daan layee ay viol nitu violence la Sonko nii ak nii saa bu jógee fitna jóg tey nag dëkk baa ngi fees dell ak fitna ñu ngi taal dëkk bi te Sonko waxut ñu ngi agressé nit ñi te Sonko waxut nit ñaa ngi jóg di fippal seen bopp te Sonko jot la xew Fuuta yoonu Sonko nekku si li xew Fatick yoonu Sonko nekku si li xew li xew Koungheul ak Tambacounda ak yeneen dëkk yi yoonu Sonko nekku si léegi nag loolu dafay gën a yaatu du wàññeeku te loolu li ko gën a li ko war a mën a wàññi mooy yow président de la république nga teggi sa tànk waaw te nga xam ne ñun comprendre nañ li jeu bi ngay joué ak li rôle bi ngay dox yëpp ñun comprendre nañ comprendre nañ ko wax nañ ko suñu papa yi wax nañ suñu yaay yi wax nañ ko suñu ndaw ñi